bismillahi rahmaani rahiim barkeb borom Tuubaa barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall barkeb Cheikh Maxet Badiane asalaamaaleykum mbokki jullit yëpp mbokki taalib yëpp fépp fu ñu mën nekk dëkk bi ak ci àdduna bi ñu ngi fii jàkkaarloo jëmm yu tedd Cheikh Moustapha euh, Cheikh Mambay Serigne Baba Diop ñu am xibaar boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu buñ ko gën a yaatal nag muy suñu bis bii ñu bokk ñun ñëpp muy bis baay Maxet bi saa su ne ñu koy ànd di ñaan suñu borom yàlla nañ ko àndaat ndax tey dëgmal si ñu bëgg nag Serigne Mambay khalifa serigne Maxet Badiane and ak sëriñ Moustapha djey ak mbokki talib yëpp wote ci bis bu tedd bobu ñu wax kagn la ak fan la inshallah serigne mam bay kon bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ ñu lay siyaar bu baax serigne Babacar Ka ci li nga xamne ni mo lañu la ni moy liggey bi ñu way defal Baye Maxet Badiane moy ñaan ñu koy defal at mu ne mu ngi tollok le 10 mai le 10 mai ñaari fan ci weeru diggi tabaski waye ñu koy def ci ndigal sëriñam nak ci Abdoulahi Lo Kusaas barki dem lañ fa dem lañ fa demoon doon ko ko yëgale ba mu ci ndigal mo ci Abdoulahi Lo Kusaas ak seigne Cheikh borom ndigal Fall nga moy sëriñam ak seigne amdu munu mbenn nga xam mo fi nekk maam Cheikh Fall lépp tamit daajale ko jox ko sëñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi wër te wër Cheikh Mouhamadou Muntaxa yàgg fi lool te wër ñaan nak liggéey bi ñu ko waaj defal yalla defal ñu ci ngeerum ak barke cant la nag ànd ak ñaan mooy dañ koy sant dañ sant sëñ Touba di ko ñaanal bis bi mu njëkkee am kër Touba moom kër ga nee fanaan bis boobee lay sant sëñ Touba muy tombe kañ waaw ah, muy le 10 mais 10 mai waaw incha allah bi fan si. Ah, daaru mën naan lay doon. daaru mën naan waaw ah, daaru mën naan lay ne. incha allah boo boo bar bu ñu bar suñu affaire. Hmm. foofu lay fa la kër gi ne. Hmm, nuñ koy dañ koy yendoo wala dañ koy yendoo jàng alxuraan ak xasaay. bu hmm. ne ba takkusaan nag. sëñ bi ñaanal mboolem léegi nag bàyyi faa la tàmbali si kër si. allah ba ba ba ba timis rek. incha allah noonu lay tàmbali. incha allah léegi tamit ku mel ni sëñ Gora Gueye. ak ku mel ni sëñ Cheikh Lo sëriñam sëñ Cheikh Lo sëñ Cheikh ñoom lañ siy ñaanal moom lañ siy Cheikh Lo ñaanal sëñ Gora Gueye nag ko. incha allah tudde ko di woo ñëpp nag Baye Moussa Dieng ak xam ne mooy mooy mooy mooy jiital mbooloo mi hmm. ak sëñ Malick Guèye hmm. ak ci ndam Pastef ak waaxlu xasidi yëpp hmm. ñu ngi leen koy fàttali yow tamit nag yow tamit sëñ Babacar def nañ la jëriñ lépp communication bi nu fa mën a àgg rek ñu ngi la koy wax incha allah rabbi kon kon kon mbokki taalibe bis baa ngi noonu le 10 mai fee ca Afia ànd ko mbokki taalibe bi yëpp Cheikh Moustapha yéen kàddu ngay tëjee waaw moom de xanaa ñaanal mbooloo moom nga xam ñoo am pas-pasu jëf jëf gudee jooju te jëmale ko ci buuru yàlla gu mag mooy bàyyi ma xat ba jàmm ñam fekk ak ñam fekk yàlla nañ ci dajee amee ngërëmal sëñ Tuubaa xaadimu rasulillahi sallallahu borom ci itam ba mu yëg jot na ci ñam fekk ak fekk ñun ñi nga xam ne ñoo ñoom la yàlla dogal ñuy taxaw bis ba ñu ñu ñu yolwaan yàlla yàgg fi te wér te gën a mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa te lu mu ci liggéey muy ngërëmal Sëñ Tuubaa amiin barke borom daara ndax borom ngërëmal yàlla mm. loo ko defar rek seentu ci ngërëm incha allah te sikkuwul ne borom ngërëmal yàlla macha allah loolu moom moom moom moom li ñu doon doon gone xam nañ ne borom ngërëmal yàlla alhamdulilah